Euh, monsieur Bamba Ndiaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Fatou. nekkoon ministre des affaires religieuses si jamonoy président Abdoulaye Wade tey ñu am mbégte mu rëy dalal la ngir waxtaanee actualité. ay fan a ngi nii euh, li gën a fës euh, mooy euh, ki ñu ne dafa doon jàngale alquran te yegg ci ay tout tànk ca Wakam lii ak yeneen i mbir yu gën a gàkkal deru njàngalem diine ci senegal ci sa xalaat lan la ñu war a def ngir dakkal mbir mi. waaw dëgg la loolu yëpp dañ koy naqarlu ni nga ko waxee noonu la amee. amoon na ay xew-xew yu naqari aussi yu ko jiitu woon waaye loolu rek dafa am lu muy tekki li muy tekki moo di état bi dafa war a gën a dugal loxoom ci njàngaleem alquran waxuma sax état na ko jël carrément en en charge. Hmm. di di di di ci dugal xaalisam. waaye nag na ko yittewoo dimbale leen. am na sax ay jéego yu am solo yu ci état bi defoon. Hmm. parce que statut modernisation de daara. Euh, daanaka liggéeyoon nañu ci bu mouture bi mujj bi boole nañ ci nitu dara yi et ba conseil des ministres bu ma jumul euh, depuis 2017 adopté woon na ko mais ba léegi ñi ngi xaar mu egg ci assemblée nationale xam naa ñàkkul sax ay coppite yu tuuti yeeg ci war a def mais loolu wares na ko gaawee pour parce que moom dina régler problème yu bari yoo xam ne daara mi ngi koy dund tey te yaakaar naa ne loolu du lu jaadu. loolu mooy euh, modernisation de daara ndax euh, jàpp nga ne euh, kon solution la ci jafe-jafe yu mel nii. waaw defe naa ne bu ñu ko appliquer ni ñu ko waxee. dina nekk solution ndax statu bi yamul rekk ci définir statut jàngalekatu alquran yi waaye dafa wax itam ña fay jàng taalibe yi seen nekkin mhm. barab yi nuy jàngee dafa wax naka la ñu war a mel ak naka la ñu war a demee Euh, bref bàyyiwul benn question euh, mais warna am ay mesures d'accompagnement bokk na ci mesures d'accompagnement yi xaw ma fondation la ñuy créer xaw ma lu mel ni moom waaye il faut aussi ñu amal loo xam ne dafay finance daara yi wala mu di leen jàppale bokk di leen appuyer. Hmm. loolu yëpp yaakaar naa ne état war na ko mën a def ndax yeneen état def nañ ko noonu lañu régler seeni problème ba amatul mendicité amatul phénomène yi nuy gis fii former aussi jàngalekatu alxuraan yi. Hmm. former leen de manière pédagogique. justement foofu lañ naroon ñëw kan moo war a nekk jàngalekat ndax bu ñu gisee tey li ñuy teg ci kaw ñi ñu ne ay jàngalekat la ñu yëpp euh, dañuy am ay laaj yoo xam ne xëy na am tontu li dina jafe. waaw mbir mi mi ngi foofu. Euh, parce que Sénégal yaa ma gën a xam ne pour nekk fi jàngalekatu alxuraan boo wëree wër-wër amoo loo def nga tase koo xam ne nangu na laa jox garage am wala sax nga am benn bayaal rek. boo def ay carton daanaka daga nga fay mën di tàmbali di jàngale alxuraan ñu tudde la jàngalekatu alxuraan fekk yow peut-être li la intéressé mooy mille francs ya ngay fayeeku wala lu demee noonu pour mën di ko dunde loolu donc lu mel ni statut bi buñ ko appliqué woon dana régler question boobu parce que foofu définir nañ clairement critère wu ki war a jàngale alxuraan am na aussi ay exigence yoo xam ne war na ko remplir pour mën a jàngale alxuraan donc encore une fois yaakaar naa ne jot na vraiment ñu yittewoo mbiru statut boobu. xëy na boobaa danañu mën a yegg ci ay enquête de moralité ngir xam nit ki euh, li xew wakam bu loola amoon mën na am. mais xam nga sax buñ jaare yoon. Mhm. Euh, euh, diplôme wala attestation pédagogique pour jàngale alxuraan. Mhm. balaa ñu la koy jox sax ka la koy jox. mooy njëkk a enquête de moralité. Mhm. ce qui veut dire que buñ exiger ne na nga yore diplôme boobu boo demee ba mën koo am daanaka ja jàll nga sax étape yooyu. Mhm. alors donc loolu daf ci baax parce que dina tax mbir mi gën a structuré wu. Mhm. même jàngalekatu alxuraan yi dañuy jooy loolu. cest nit ñi xëy na ñaaw euh, ñaawteef yooyu rek lañ gis mais am na benn aspect bu gën a garaaw. ñiy jàngale ñi ci bari lañu jàngale jaarul yoon. ñoom ci seen bopp dañoo waroon a jàngi alxuraan. Hmm. boo déggee ni ñuy taree nga xam ne alxuraan dafa am tajwid. Hmm. dafa am façon bu ñu war a liire arab bi arab ku ko jàng xam ne langue bu compliqué la lecture am. Hmm. alors yooyu yëpp duñ ci respecté dara. donc da ngay nax sa bopp foog ne ña ngay jàngal sa doom alxuraan. fekk ka koy jàngal ci boppam daa waroon a jàngi. loolu moo fi bari. njàngam mokkul waaye euh, lu aju itam ci njàngum alquran bi ba tey jafe-jafe bi ci ne itam yàgg ci lool mooy yelwaan gi muy exposé xale yu bari loola ay euh, kilifa yu bari yu jaar ci réew mi jéem ci ay pexe waaye sottiwul lu waral euh, ci sa xalaat yelwaan gi dëgër bopp ba léegi waaye yelwaan gi moo di ne li ma tàmbalee woon état dafa jëlul en charge njàngaleem alquran mm-hmm. xam nga man nanguwuma layu laïcité parce que Euh, malgré la laïcité état ngi jël en charge euh, le pèlerinage à la Mecque et c'est le cinquième pilier de l'islam mmh. alors le délégué général il est nommé par décret présidentiel mmh. payé par l'État et ainsi de suite alors donc réew mu demee noonu te loolu depuis le temps colonial mm-hmm. le la commencé alors parce que même le colonisateur français avait compris que Sénégal gii kenn mënu ko doxal te yitte woo l'islam mm-hmm. donc bu ñu demee ba am indépendance vraiment waratula am lay pour ñu bañ a jël en charge intégralement question wu jàngaleem alxuraan ne serait-ce que pour organiser ko accompagner leen régler problème de mendicité tudd naa léegi une fondation wala moo xam benn structure bu ñu mën a créer mhm. boo xam ne dana générer xaalis bu mën a accompagner ñooñu ñun ba ñu koy ci jamono yi Ablaye Wade laata muy jeexal santoon nañu ñu defar un document tout prêt c'était en fin 2011 mhm. euh, boo xam ne tëraloon nañ ca benn structure boo xam ne leeral nañ koy financer te kooku waroon na mën jël en charge question daara yi parce que booba ba ñu koy def dañu wër ay réew yu mel ni Maroc Soudan euh, Iran bref ay réew yu yore ay daara jiituñu ci mais ñoom réglé nañ foofa doo fa gis taalibe bi yelwaani Mhm. alors nañu ko réglé ñun mën nañu ko. waaw ñooñu euh, nga xam ne xëy na ñoo doon opposé wu ci mesure boobu euh, li ñu daan wax mooy euh, yelwaan gi ci njàng mi la bokk yàqul dara ci diine ji lobby yooyu tey nan la ñu mun a def xëy na itam ba convaincre leen wala mucc ci seen ay pexe ngir jëlee fi yelwaanu gone yi. non je crois que man dama liggéey lu mat fukki at au moins ci ay ONG di jiite ay ONG yu mag international donc approche dafa am solo ci toute action sociale. Hmm. action sociale boo koy def te sa approche baaxul day am ay résistance même bu doon lu baax nga leen di jox mm-hmm. approche yi moo dul baax xam nga d'abord daara euh, digganteem ak njàngum tubaab dafa am depuis le temps de ba avant bu même en mille huit cent cinquante sept la Faidherbe bu njëkk jël arrêté pour freiner daara yi arrêté boobu ba léegi mi ngi ci archives nationale yi mm-hmm. bon ku dund situation boobu ba egsi indépendance bi ñu amee indépendance ñu donn école tubaab bi donc école ba fi fédéral bu indi mooy école bi ñu validé mooy l'école officielle bi ñuy jaarale sunum njàng officiellement alors daara yi continuer parallèlement di exister à côté day am forcément benn hostilité euh, héritée du temps colonial bu ñu buy buy continuer ba léegi alors boo ko bëggee régler nag dem jël ku jàng français mm-hmm. yebal ko ne ko demal ne waa daara yi dama leen mais bu ñëwee sax dañ ko ragal. waaw dañ naan kii am na lu ñuy fexel. Mhm. suñu noonu mais moo tax ci approche yi nañ jël nitu daara yi. Mhm. yabal leen foofa ñu rek la ko créé nañ fi ay pamot ay programme la euh, bucket euh, aw paquet. Mhm. ak yeneen yoo xam ne avant loolu pareer ci jamonoy Ablaye Wade def ci ay milliards yu baree baree bari. mais yooyu yëpp boo gisee ñi ko jiite ay francophone la ñuy doon yoo xam ne. bokkunu ci milieu daara mhm. dikk di leen indil solution naturellement dañ koy rejeté mhm. d' accord beneen actualité aussi euh, mooy euh, li ñu tuddee secte religieuse euh, ndaw si tuddee boppam Zeyda Zaman fës lool jamono yi ndax islam am na gis-gis ci wàll woowu ak lan la waaw ndax loolu du lu bees yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca la amoon ñu feeñ di woote ak yonent bokkoon na ci ku siiw ku ñuy wax Musaydima al-Kazzab mooy Musaylima fenkat bi Musaylima dafa jëkkoon dafa seet si woon bi di ko proposé benn diil ne ko man yonent laa yow yonent nga da ngay kaay ñu déggoo mhm. ngay doxale nii may doxale nii bu ko defee kenn du yàqal sa morom yonent bi ne ko tu n'es qu'un menteur mhm. alors tudde ko Musaylima al Kazzab mu dem yoonam euh, depuis lors euh, l'islam dajul di jànkoonteek ay phénomènes yu demee nii du fii rek lay xewee ci réew l'islam boo dem yu mel nii dafay xew mhm. mais heureusement l'islam diine la boo xam ne dañ ko ñàkk inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafidun sunu borom moo ne maa sama bopp mbir mi maa koy gardeel sama bopp mhm. alors waajaloon na yu ni itam waajaloon na ko mhm. moo tax euh, dama ku koy def itam euh, euh, da ngay perte sa temps parce que du jàll ña ko fi doon def ñëpp tey am na yoo xam ne fàtte nañ leen sax kenn déggatul seen tur te bërki Dembo Ndiaye feeñoon na fi. Mm-hmm. Euh, je me rappelle 1990 le cas de Ndiaye Mody Grandi euh, ak ñeneen ak ñeneen ñu dul moom. Mm-hmm. alors mais ñooñu ñëpp tey euh, wujj nañ seen borom ñu ngi leen di ñaanal ak njéggal. Mm-hmm. donc affaire bi tey dafa am nag léeg-léeg ñoo xam ne dañu feebar mais xam nga société sénégalaise daanaka def dul xàmmee ku feebar feebaru xel. dañu naan tant que sumiwuloo sa yére mm. wala sol soluloo yére yu tilim rek daanaka duñu yaakaar ne vraiment da nga am feebaru xel or nit mën na solu ba jekk solu ba rafet feebaru xel. Mm-hmm. Euh, man yaakaar naa ne bari nay cas yoo xam ne dees leen a war a yóbbu fan. ñuy jéem leneen lu dul loolu. ndaw si Zeyda Zaman ñu bari ñu ngi wax ne xëy na ay jinne ñoo ko jàpp ñeneen ne euh, xëy na escroquerie la ci sa gis-gis yow lu ko dal. wax dëgg yàlla man awma xam-xamu mbiru jinne yi moom. Mm. Euh, mais li ma gëm mooy feebar la war a doon. Mm. parce que yaakaaruma escroquerie quand même escroquerie nag am na am na ñoo xam ne. Euh, dañuy jaare ci diini mhm. pour wut personnalité wala wut buzz wala wut xaalis wala wutu tur ainsi de suite euh, yooyu ay forme escroquerie escroquerie yu baree bari ci jamono waaye xëy na ku mel ni ndaw si parce que am na lu tuuti lu ma xam ci ndaw si quand mhm. loo xam ne yaakaaruma ne ci catégorie boobu la bokk li ma gën a yaakaar mooy dama jàpp ne dafa ànd ak feebaru xel. waaw feebaru xel nag. Mm-hmm. léeg-léeg mu manifesté woon loo xam ne euh, dama ne sénégalais du ci jël en compte. Mm. mais man wax dëgg yàlla loolu laa gën a yaakaar. dafa feebar waaye lii yëm ñu bari mooy ñi ko topp te ay magim jëmm lañu moom mu ne yonanti yonanti bi la loolu itam jaaxalu la. Euh, waaw loolu de du ma jaaxal ndax xam naa Sénégal damay faral di wax ne sénégalais moom euh, ku jóg fii ñu topp la man gëm naa ne benn xar sax bu mbéy di woote dina am ñu ko topp waaw oh, dégg na sëñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum eh, yal na yàlla yokk leeram moo daan wax ne Sénégal suuf su naat la loo fi ji mu sax loolu mooy waxi dëgg Sénégal ku woote ñu wuy si la et eh, suñu culture aussi eh, dafay gëm sax dof xam nga suñu culture ñooñu ñu nga xam ne dañu am feebaru xel sax dañuy wax ne moytu leen wala kii leen léeg-léeg nga gis koo xam ne dafa am feebaru xel ñu dem di ko ñaanloo di ko def loo leneen rek leneen loolu yëpp dafa bokk suñ culture am na aspect bu ci positif mhm. aspect bi ci positif mooy duñ la rejeté mhm. parce que rejet baaxul ci société mais nag bu société bi eggee ci benn naïveté mhm. ba jiital koo xam ne des ko waroon a omat bu boobaa ci musiba leen jëm loolu nag wax dëgg yàlla mooy li ngay seetlu ngay gis ay magu jëmm yoo xam ne waroon nañoo yeewu ci diine ñuy nelaw euh, maa ngi tudd léegi kaaw Ndiaye Modou Girandu euh, maa ngi koy ñaanal njëgal ci suñu borom. Hmm. ba ma ko seetee booba man gënoon naa nekk ndaw dem naa ba këram seeti ko jàkkaar ak moom wax ak moom ba ma wàccee góor ñama fekk ci buntu ba ñu di ko garde dama ne leen damaa taxaw ak ñoom di waxtaan maa ngi leen euh, dem leen jaamu ji yàlla jàngi seen diine moo gën ngeen topp koo xam ne xamut diineem te xëy na dafa réer hmm. alors lu mel noonu laay wax ñii nga xam ne dañuy topp soxna soosu ngeen di wax. Euh, xëy na nga yëkkati sa kàddu euh, ci lu gàtt ci euh, position bi président de la république fësalaat ci àllarba ji ci kanamu premier ministre bu Canada di Justin Trudeau ñëw fii ci Sénégal ci wàllum ngóor jigéen gi li ci chef de l'État wax noo ko gisee. rafetlu ko félicité chef de l'État ci position bu leer nañ bi mu joxe. yaakaar naa ne kuy jiite réew mu mel ni Sénégal waroo mën a wax lu yées li président wax. ndax Sénégal réewu diine la du ma wax sax jullit kese ndax ñi ngi fi nekk ak suñu mbokki chrétien mais chrétien diiney chrétien ak diiney lislaam dañoo bari lu bokk dañoo bokk lu bari lu ñuy bañ mhm. bokk na ci ak ngóor jigéen ñoom ñaar ñëpp koy bañ kon nag réew moo xam ne boo jëloon quatre-vingt-dix-neuf pour cent su ma neexoon ma ne cent pour cent soit ay musulman lañu wala chrétien réew moomu ku koy jiitee li président wax moom ngay wax ñun duñu Canada duñu États-Unis duñu France bokku noog ñoom passé culturel bokku noog ñoom ngëm-ngëm bokku noog ñoom histoire ba tax na ñoom mën nañu ñoom da ngay gis sa réew njiitu réew ma sax nekk ko mhm. te du ko nëbb wala nga gis ab patron wu entreprise bu mag nekk ci te du ko nëbb mhm. loolu nag mun ta xew ci suñu réew yi mhm. donc ni président wax mooy li war di jaraw waaye nag maa ngi woo Sénégal yëpp ne nan jàppale président bu ñu seetaan rek président di waxak ay naatangoom parce que bu ngeen fàttalikoo réew yu mag ñooy demandé loolu mhm. Trudeau mi ngi fii eh, defe naa suba wala gannaaw suba xëy na lay ñibbi mhm. waaye Marc Pompeo mi ngi fii waaj a ñëw mhm. bu États-Unis ñoo ñëpp daanaka ñoo xaw a bokk jubluwaay e gisoon naa sax kuréel yu demee ni kii ànd sàmm jikko yi ak Jamra def lu rafet parce que teeloon nañoo artu yooyu jar nay def mais di jàppale président aussi. Mhm. parce que boo amee président mu jël position buy refléter position peuple bi waa peuple bi war nañ koo delloo njukkal ci loolu di ko jàppale ci loolu ba wan ñële ne li président di wax duy wax ak moom kese. Mhm. mais day traduire sentiment wu peuple bi nga xam ne ñoo ko fal. Mhm. ñoo ko fi teg. jërëjëf am na solo monsieur le ministre Bamba Ndiaye ñu amoon mbégte dalal la fàttali ni euh, nekkoon nga fi ministre des affaires religieuses ci euh, jamonoy président Abdoulaye Wade. jërëjëf.